bismillaahi rahmaani rahiim ñu del siwaat ci waxtaani sëriñ tuubaa yi diggali sëriñ tuubaa ñu tolloon ci waxtaanu téeméer bi ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar am na marum làmb mu ñëwoon ci sëriñ tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo sëriñ tuubaa ni ko noo tudd mu ni ko noo tudd mu ni ko magay maram ndaw laa tudd waaye mbërum ñoom rek lañu may wax sëriñ bi ni ko fii ba fa kenn doon mbër daa daan ñeenti ñii mu jug tàmbalee bàkku di kañ boppam sëriñ bi ni ko déedéet daa di koy limal bakkan bànneex seytaane àdduna mu ni ko ñooñi ba àdduna sosoo ba tey yaa ma masa daan ba ko sëriñ bi téye ba koy yeewi dani ko da ngay jëm siin xëy xëy muy siin saalum fa la jant soxe muy fu jant suuxe rek mooy saxuwaay ba mu dem ba baagu njéeme ba ci ak sump ba koy génn muus ki mu yoroon dara ci sump gi lon ko mu wadd fekk jant bi du so mu ni fii la sëriñ bi wax na ci ay mbindam ni bakkan ci xiif lañu koy note saytaane ci tudd yàlla lu bari lañu koy note bànneex ci néewal wax ju amul njariñ lañu koy note adduna ci néewal ab jaxasoo ci lañ koy note kon murit buy jàng alxuraan lu bari ak xasiday sëriñ Tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu lu bari di waxtaane sëriñ bi te lépp lu muy jëfandikoo di ci fas liggéey sëriñ bi lu muy waxit noonu daanaka day di amu wala alam ñoo ci nettali téeméer fukk ak juróom sëriñ Tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu mas nay waxtaan ba mu yàgg mu am ku mu xëcc ci fere yi ni ko diw góor góorlu leen bu baax bis ba te mooy yowmal xiyaam bala kenn jàll mel nii kooko daa soloon lu weex sëriñ tuba xaada lahu lahu maxtaar dañu xamal ne àjjana bërëbu yàlla la subhanahu wa taala bu mu sellal moo tax ku sellal rek moo fay dugg li lay sellal nag mën naa say jaamu yàlla subhanahu wa taala ak sa tuub wala ay nattu ci àdduna wala ca sax wala ca sawara doore genna dugg ajana waaye balaa kenn tàbbi ajana faaw mu set yàlla nañu yàlla setal ci ak mbaaxam ci barkeb sëriñ tuuba xaadira wala maxtaar loxo musal ñi itam ci lépp loo xam ni dañuy taqal wala alam ñu ci nettali téeméer bi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu mas nay fobloo sëriñ Shuaybu radiyallahu taala anhu ay peñ suukar su nekk doj am ku jug nar koo foble sëriñ bi tere ko ni ko kenn daa mënta jariñu ci man te liggéeyaluma kon loolu dañuy firil bay bi ci naxaju xadaa il xaaj واعلم بأن المجد لا يمال إلا بقدر الكد فيما قالوا وقيل إن نفح من تعلم ميط بإجلال سيوخ العلماء يالنا يالا دولي دمبلي ci barkeb serigne touba khadallahu allahumma akhtara lahu ñooy ci nettalib téeméer bi ak juróom ñeent fukk sëriñ Tuubaa xaadi la walaw maxtaar noxoon nee na sama mbiri bopp ak fa ma jëm ak seen mbiri bopp ak fa ma leen jëme lépp ni ma sama rëddi baaraam yii leere noonu la ma leere siiw na wala wér na lool kashafta lii kashfan yurini man baham wa sumtani an il aadi wa tuham علمتني الغيب حتى صرت منتبها أنت العليم الذي علمتي الله yàlla nañu doolee dimbale ci topp ak tànnam ci ñun waxtu wu nekk yàlla nañu doolee di yàlla dimbalee ak sopp ak yaakaar ko wala alam ñu ngi ci nete téeméer ba ak juróom-ñeent fukk ak benn mbooloo mi mas naa bari lool ci këru Daaru Mannaan ñëw di leen yëgle ci Sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo mu wax ni nee leen ku ci bëgg ab xaalis na dem ci buur yi ñoo am xaalis ku ci bëgg ajjana na dem jaamu yàlla subhaanahu wa ku ci bëggul lu dul yàlla fu mu fi man di nekk na ñëw ñu dem sëriñ bi du nax kenn waaye itam kenn mënu koo nax mboolee mu yi li ñuy bari bari ku ci ne xam na la ko tax a jug xam ne itam na mu koy jariñe ak na muy jariñoo ci moom ku ñëw ci moom wax ko la nga bëgg dana la tegtal yoon wa ngay jaar ba am ko boo ko defee faaw nga am la nga bëgg boo ko defal itam du tee muy ànd ak yow ki sa bëgg li feeg wuute wut ak bëggug yàlla subhanahu wa taala wala alam ñu ñëw ci ne nettalib téeméer bi ak juroom ñeen fukk ak ñaar ak fulkul mashhud sëriñ tubaa xaadaloo law maxtaara lawoo da koo fonkoon lool mas naa wax abdul xaadir yow mi dàq ñépp ab néeg takkalal fulku ab néeg cheikh fati tàkko ko yow mi dàq ñépp ab lal wutal ko ab lal majj majj aw tur la wutal ko gaal yow mi dàq ñépp gaal saaxóor saaxóor aw tur la wutal ko kër yow mi dàq ñépp kër madu géey jafiira aw tur la wutal ko jafiira yow mi dàq ñépp jafiira ba lépp noppee sëriñ bi teg fulkul masxoon ca kaw lal ba daal di toog fi suuf sëriñ bi jëfinam wii li mu ñuy leeral mooy li mu wax ni mbindam yi ay jëmm lañu boo ko gisee boo gisee fulkul masxoon Sëriñ Tuubaa xaada law maxtaar law fonk ko mooy nee na xare yonente bi sallallahu ala alayhi wa sallam daa am bu ci desoon boo xam ni moo ko mottali mel na li tee kéefar not ci kaw suuf si mooy alfulkul masoon kon war na bépp murit mu am ko te di ko war maal su ko defee wàlluk jàng ko nag man li ma ciy wax mooy la Sëriñ Saalihu daan wax radiyallahu taala loolu mooy ku ko man deel jàng ci xasiida yi mu def ngir sant yàlla subhaanahu wa taala ginnaaw xare boobu sëriñ Tuubaa xaadi lawul maxtaar loo nee na alxuroofu xuroofu xaraf wu nekk la nga ca namm ba nga koy bind moo cay nekk ak nu mu mën a mel ak ci lu mu mën a jëm ndax inamal amaalu binniyaati loolu ab hadiis la sëriñ bi nag bi muy bind xasiida yooyee ci géej ak na meelam mooy xeex ak kéefar ak na meelam mooy xeex ak kéefar ba mu daanu ak yéefari loolu itam ba mu ko namee di ko def sax ca dëgg mu na sunu borom subhaanahu wa taala fekk ko ca lool ba natal ko kéefar ak mbooleem yéefari ba may ko bu bàyyiwul mbind yi yéefari yépp faatu ci kanamam mu daal di leen jéggal moo tax mu wax ni لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بها ذوي العتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باخ مهلك خناس su ko defee ndegam sëriñ bi loolu moo doonoon pas-pasam ba mu koy bind yaakaar naa ku koy jàng itam du ñàkk luy ñëwaat ca yooye moo tax li ma yaakaar ni moo gën ci am murit mooy santale sëriñ bi ci xasiday santi tubtu lahu min xayri shukrin alana wa qaada lii minhu taala walana شكورا لا مكوف مع البرء أقول وقهد الشكر في الدور أزمنا هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان ولو أعلم نيوتي نتي تيمير بأجروم نين أن أنيت sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na yar mënta ñàkk ku ci am ko war a yar te yaroo ko joxe woo ko fu ñu ko yare adduna dana ko yar bu ko adduna yaru bàmmeel yar ko te ku mu ku bam te ku bàmmeel yar dana yaru ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom ñeent fukk ak ñeent sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na li ko dale ci bis bi ba ba àdduna di tukki lépp lu ngeen gis ci samay mbir lu mu rëy rëy ba tax ngeen di ko yéem lu ko ëpp lu ko ëpp nga ca kanamam ba ba àddunay tukki siiw na wala wér na lool wala azalu zas diyaadin minka sëriñ bi leeral na lu bari ci ay xasiidaam ni li des ci àdduna lépp moo ko moom te it ay mbiram waxtu wu nekk day yokk ci tànn yàlla subhaanahu wa taala nee li mu gën a bëgg ci ay murit mooy muy bañ a soppiku ngir xéewali di fexe sax ci ak bëggam nga xam ni yaay soppi xéewali waaye xéewali duñu la soppi wala yaxul ma ustahu min niami tanfadu baynaka wa bayna almunami ñoo ci netal téeméer bi ak juróom ñeen fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaara la woo nee na ñaar ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne mësuñoo gisante mësuñoo xamante seeni kilifa xam ni war nañoo ànd ci sëy daal di leen boole ngir ñu sëy bu ñu nangoo doom ju ca juddoo lu mu am lu mu bëgg am ko doom ju ca juddoo lu mu bëgg am ko ñaar ñoo xam ni dañoo xamante gisante bëgganteel seen bopp waaye jaar nañu ko ci yoon waxtaan ak seen kilifa kilifa yi defare seen diggante ngir ñu sëy doom ju ca juddoo lu mu wut am ko ñaar ñoo xam ni seenu duggante ak seenu diggante daa mel ni rey mu dee reyul mu dee wala yaasu billah xëy na bi mujj li tax waxu ci dara day bañ a wax leneen waaye loolu mooy ñaar ñi nga xam ni ku leen maye ñu sëy ku leen mayewul ñu sëy su ko defee ci lii la ñuy xame ni am na doom yoo xam ni seeni waajur ñoo leen tooñ te sax loolu yi mooy li ëpp ci jamonoy tey ndax léegi kenn yarootut lu waay bëgg da ciy daal di jëm du xool war na wala warut du ci sàmm itam yenn teggin lu mel ni nag bu amee te day yokk rek li ciy musle mooy ànd ak yàlla subhanahu wa taala te koy ñaan mucc waxtu wu nekk ci barke sëriñ tuba xaada lahu llahu maxtaara lahu rabbana hab lana min aswaajina wa zurriyaatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama